alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kashifi lghumma wa shafii l umma sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aimma wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi alqiyama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 ci yaa ayuha alladina amanu sbiru wa saabiru wa raabitu wattaqu llaha laallakum tuflixuun tolloog ñaar téeméeri lu aaya ci aala imran waaye dëppoog fukki yaa ayuha ak juróom ñett ci alquran muy nidaa wa saamin saamina ashar di wootee fukk ak juróom-ñett ci yaayuwaay yi bii sax de mooy bi mujj ci saar wile di ale imran muy woote boo xam ne suñu boroom dafa ñu coo dafa ñu cee digal ñeenti yëf moom la sant jàllar bi ku dëxal ñu ci menn mbir ñeenti yëf la digle ne buñ ko defee mu defal ñu ne danañu defal menn mbir ñeent nga nag lañ seet ba xam ñi ngi ceem nekkuñu ci ku ci nekk jéem caa sax ku ca nekkut jéem a góor góorlu ba nekk ca bi ci njëkk dafa ne yaa ayyuhal lazina amano yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm goo xam ne dafa sax ci xol làmmeñ tudd ko ay cër ñëw dëggal ko li ma leen di sant daal mooy isbiru muñ leen muñ leen ba topp seen borom ci lim leen sant muñ leen ba bàyyi lileen seen borom tere muñ leen ak nattu yeeg jafe-jafe yi nga xam ne dama leen koo mooñaale yàllaa ko mooñaale ak jaam bi ci feebar feebarle ñàkk ak deele ak yenn kàddu yu métti yeeg yu métti yi mu ne muñ leen ko sabru ala sabru an sabru fii waaye tamit wa saabiru na di muñ ndax fii ngeen nekk di bulab àdduna bi dafa am ngeen fi dëkkat léeg-léeg seeni baag wala seeni goj dafay laxasoo léeg-léeg li laxas sa goj bile sa jabar lay doon muñal wala mu nekk say waajur muñël wala mu nekk sa njaboot muñal wala mu nekk sa mbokk muñal wala mu nekk say dëkkandoor kooku mooy mu musaabara moo tax mu ne wa saabiru waaye tamit ñetteel ba mooy wa rabitu place yi gën a dansé gën a jafe nga xam ne ñëpp mëneewuñ fa na am ci yéen ñu walanteeru huutu fa ñeneen ña fa def mooy li nga tuddee fàndu waaye nag ñeenteel ba mooy wattaqullaha na ngeen sax dàkk ci ragal ma jëfee samay ndigal baaxi samay tere ñeenti yii su ngeen ko defee ma defal leen laallakum na kon wóor na ma nañ ñi ne kon da texe kon képp ku muñ bi muñ lante nangoo fàndu nangoo ragal yàlla sikk amul ci ne danga texe te nag dëgg-dëgg raaya bi yëpp mooy dayoo bi ñuy wut ñun ñëpp mooy texe texe ku ko xasaam ñàkkoo dara ku ko ñàkk amuloo dara kon oote bi loolu lay wax muy oote ku kawe tabaarakallaahu di woote ku suufee bëgg mu wuy si ci lim koy woo mu man caa jaaree yëkkati ko moom mu suufe mile ku kawe ki lay yëkkati la ba nga mujj kawe sag maas xoote bii la yàlla tëjee saar wile di sóoratu ala imran mu ci mujj mu digle ci muñ ak muñ lanteeg fàndoog ragal yàlla ndax boo xoolee saaru ala imran saar la woow dafa dajale ay xeet yu bari ci xam-xamu usul muy cosaan ak yi ay furoo usul yi am na ci yoo xam ne dafa ajoo ci gëm ak nubuwatu ca yonantu ya ak lu jëm ci gëm delluwaay ba mu yowmal qiyaam furoo ya nag am na ci yoo xam ne dafa aju ci ay takaalif ay toggeel lu la yàlla teg ci ay àtte lu mel ni xaj wax na ko ci lu mel ni jihaat mu ñëw nag mujjee ko ci xoote gi mu làmboo ay teggiin yu mat sëkk moo waral kon mu tëjeeku ko ko wa qad jaat xaatimata suurati bi ayatin karimatin mustamilatin ala jamii al adab dafa dafa dafa dafa làmboo mboolem xeet teggiin yi ndax doomu aadama joo gis rek ñaari xaal ngay dund day dana xaal boo xam ne yow rek koy dund dundoo koo kenn am xaal boo xam ne danga koy dund ak sa moroom yow kenn mënoo cee dem yàlla ne xaal bi ngay dund tabaarakallaahu sa bopp nga xam ne sa digganteeg sa borom rek la muñal muñ moo la ci mën a génnee ba nga mën a sant lam la def nga def ko lam la sant nga def ko lam la tere nga bàyyi ko kooku moom yaay na dina ama nusbiru waaye nag alxaalatu saaniya ba mooy boo xam ne da nga koo bokk ak sa moromi nit ñi ngeen laxasoo seeni goj yi moo xam ci ak jabaroo moo xam ci ak mbokkoo moo xam ci ak xaritoo moo xam ci ak dëkkoo moo xam ci ak liggéeyoo ak ci ak jëflante su boobaa nag yooyu yëpp musaabara rek moo fa ma a dox seen seen dëkk bi neex muy wasaabiru waaye koo gis ñu lay wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén kenn déggul leen kenn xattewut leen buñ la ko waxee buñ la ko waxut am na ki ñoom muñ de am na ki ñoom koo xam ne mu a ngi koy bëgg a ray wallaahi bu muñu toon jamono ju nekk ngeen dégg leen te doo ca man dara su ko defee kon nag muñ googu la yàllay santaane ñi muñ ci coonooy xool ak jéema a tegtaloo ba mën a xam ne ñuy wéetalee suñ borom ak nu ñuy sampee maandu ci pénc mi ak nu ñuy gëmee ak nu bóotu ak delluwaay ba ëllëg ak fexe ba mën a ballalu ak tontu ci ay lënt-lënt yi nga xam ne dafa bàyyee ko ci ñi ñu wuteeg pas-pas ñaareel ba muñ ba jooxe li yàlla gàcc ci suñ kaw muy lu war wala sax mu teg ko ci suñu kaw mu yu ñu sopp ñetteel ba mooy muñ ba mbooleem li ñu suñ borom tere moo xam tere goo xam ne da koo tere te dogu ca muy yu xaraam mbaa mu teg mbaa mu tere ko te dogu ca muy yuñ ci bi yëpp ñu bàyyi ko waaye ñeenteel ba nag mooy muñ ci tartar yi asabru ala shadaidi dunya wa afatiha min al maradi wal faqri wal qaxti wal xawfi yooyu yëpp muy bekkoor ak ragal ak ñàkk ak feebar ak feebar leeg yi ci aju yëpp ñu muñ ko kooku moom moom yaa ayyuha allazina amanu sbiru musaabaratu nag mooy ibaaratun an taxamulil makaarihi alwaaqiati baynahu wa bayna wa bayna alxayri mooy fexe ba xenu ay sibeel ak i ay jafe-jafe ak i ay nattu yu dox sa digganteeg sa morom yooya nag bokk na ci say mbokk bokk na ci say dëkkandoor bokk na ci say xameel yooyu yëpp bokk na ci say soxna sag njaboot kook la alquran ne wa arid anil jahilina soo bëggee dund ci pénc mi dund mu rafet ku la réeree ba tooñ la rek du mooyul dañ koo toppante waaye kuy ku nekk ci pénc mi tooñ nit ñi doo am jàmm waaye ku ne ku ma tooñ ma fayu doo am noflaay kooku ma ngi ci suratul Araaf aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy quatre vingt waaye tamit dund ci pénc bi dafa bëgg nga dund aayaab wa isa marru bi laxwi marru kiraaman wallahi boo rombee ay mbóosóor ak i caaxaan nga romb ko romb ak dumóoyu ko bu ci sa yoon nekk ne man daal ku ràcc sa kudd ci lu bon jëmee ci man sama kudd gi jàmm rekk la ràcci kooku mu nga nekk aaya soixante-douze ci suratu furqaan nga fexe ba dund loo fi nekk waa waa ci mi ñu gën la ko soxla rek donte yow soxla nga ko sax xeeñ ko sa bopp te jox leen ko nga am jàmm wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa suratul xasri aaya boo demee da ko ci fekk nga dund tamit aayaat wa an taafuwa aqrabu li taqwa mooy ngi seen ak jéggale moo gën a jege gën a mën a dijji gën a mën a xëcc nit ki yóbbu ko ci ragal yàlla ragal yàlla daal ku la dàq jéggale moo la ko gën a dund moo tax kon yii yëpp ay ayaat la yuy firi rek yaay ayyuhal lazina amanu sbiru wa sabiru kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax aaya jàngoog suñ borom mu baax mu tedd mi bëgg ñi baaxle bañ a yàqule moo tax mu sant ñu muñ sant ñu timit muñ lante yow mi may déglu maa ngi lay waatal ne ku muñut doo xam résultat yow élève bi jàng boo muñut munoo koo yàggee ba nga dégg professeur bi mbaa nga dégg maître bi munul koo yàggee ba nga dégg monsieur le ministre wala monsieur le maanaam député bi yow miy jàng alxuraan boo muñut dóor yaag coono yaag naqar ya ba ba ngay dee doo dégg ilimaan doo dégg ambassadeur doo dégg ab sëriñ doo nekk kenn ku ñuy sukkal mbaa ñu koy ràmbal mbaa ñu koy yaakaar na ñaanal koo gis ñu koy defal rek traversé na ay xuur muñ yoo xam ne bu la ko waxoon nga ne ko li nga xam ci teraanga man jaralut ma luñ la ko jaayee man jaralut ma ko waaye tamit yow jigéen giy sëy soo muñut doo am doom ju baax yow boroom kër gi le soo muñut sa kër du taxaw mukk te ñàkk fayda ba sa kër taxaw moo gën a am fulla di xutar xutari ba sa kër gi tas dara jaru ko wala nga ñàkk fayda ba nga xam ne am na koo xam ne yaa ko gën fuuf noo yoree soxna sa soxna ci mën koo mu nga ki dépense bu doy mu taxaw di la yedd waroon ngaa def lii waroon ngaa def lii te ni nga yoree sa soxna genn wàll dafa yoreet ko soxnaan yooyu yëpp nag bu ñuy tax doo ko déggee ci koo xam ne yaa ko gën noo ko ko yoree kon muñ daal mooy secret àdduna ku la ko ëppale moo la ëpp résultat wu àdduna moo la ëppale résultat wu tamit ëllëg àllaaxira kon àdduna bi daal ku fi bëgg am résultat saxal ci muñ te sax tamit ci muñ lante ku fi nekk ne man ku ma tooñ ma fayu sa jàmm jeex na de sa noflaay jeex na ci kaw suuf kàddu yu ñaaw yi ngay dégg yépp boo ko bëggee tontu soof jëf yu bon yi ñuy def bi ko jëmee ci yow yépp boo ko bëggee delloo du too jaamooti sa borom jëlal lépp nga takk ko dumóoyu ko dëgmal sa borom woon lépp gannaaw su boobaa nag ña la doon def lu bon ak lu bon lépp dana mujj sukk sa kanam raamal la jébbalul la moo tax mag ñi lépp luñ am xamal ne muñ rek moo leen ko may bu ma yeboo ne mag ñi nag maa ngi kenn mu ca yonumtu ya da ko dara suñ maam aadama lu mu am ci résultat muñ a ko ko may yonumtu yàlla noox lu mu am muñ a ko ko may yonentu yàlla ibrahim yonentu yàlla yusufa yonentu yàlla yaquba yonentu yàlla ismail yonentu yàlla muusa ak yonentu yàlla bu tedd bi ci suñu sang tàngat tabaarakallaahu di sangi-sang yi sayiduna muhammad moo dàq mu ñëpp dem na moon benn maire bu daan tuur mbalit ci buntu këram di ko tuur ci yoon wi mu daan jaar di julli ji yonent bi toog ñaari fan ñetti fan gisut mbalit ma gisut dég ya mu laaj moom de sama dëkkandoor bi dafa am lu ma daan loree ma ko daan muñ sama borom di ma ci bindal payoor te lim ma doon loree fan yépp gisuma ko mbaa jàmm ko dal ñu ne ko dafa feebar mu dëgg tànkam dem seeti ko ñaanal ko yàlla ne ko man de dama daan gis nga daan sotti mbalit sama buntu kër di jël ay dëkk boo fóotee sobe baa ngi jël di ko ci sotti ñetti fan yii yëpp gisuma ko ma laaj ñu ne da ngaa feebar looloo waral ma ñëw di la seet si waaye ma ba mu ruusa ruusa ruus ba am gàcca ni ko xaw ma kan waaye waat naa ci yàlla ne yow doxoo nitu ordinaire suñu borom la yónni li ko xoote dëgg la ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu annaka rasulullahi kon kooka yonentoo ko terala terala terala teral ba xëy tëral ko mu jël moom tamit di jéema toroxal yonantu bi ba mujj yonantu bi ne ko li nga xam nga ma fay nga ma lebal tey ma wax la man li ma xam moom laa lay fayee ba waaj a mujj sukk ci kanamam dugg ci diina ji waaye gis nga ko mën a muñam moo ko yóbboo abu jahlin dafa daan toog mu ne daal ah, man de li may bañ bañ yonantu bi xam naa ne ku ko gën ci kaw suuf amut pexe mu nekk defal naa ko ko mënta sotti abi lahab la mooy bàyyi taxam ba bokkul ak abu jahlin mu ne bàyyil ma feebar feebar lu rek bu ko yëgee dana ma seet feebar feebar lu nag pexe laay def rek damay gas kàmb gu mag sama buntu kër lal ci basan bu ñëwee di ma seet rek dëgg ci basan bi rek ànd ak pax mi daanu ñu fekk ko fa suul ko maag sama doom yi ñun ñëpp am jàmm ah maam xalifa ne ko yaa réer koo xam ne dafa am na gis ak gannaaw waxuma la li ci kanamam yonent bi dafa daan gis li ci gannaawam rawat na li nekk ci kanamam bu daan jiite nit ñi am ñoo xam ne dañuy siggi fekk siggeegut mbaa ñuy sujjóot fekk sujjóotagut mu ne bu leen ma jiitoot ci juru koo mbaa ci sujjóot maa ngi leen gis yéen sama gannaaw comme ni ma gis ngi nekk sama kanam ku mel noonu ku koy def pexeem kanam da cay mucc yàlla dogal ba muy jëw rek ne ko ah li ñu lal basan bi yëpp teggi ko kàmb la mu teggi ko bootu ba jaar fa muy jaar seet si baayam indil ko ay ne ko damaa dégg na sa yaram dafa jagadi maa ngi ñaan suñu borom saafara la ne ko doom yaa baax te yaa am ngor jug di ko gunge fàtte na pax ma mu mujj rek dugg ci ne mëlëb alquran la mu waxoon ne wala yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi waaye nag la ca gën a yéeme wala maawu siire yi ñu ne pax ma fukki mètre la ñu indi bu ma fukki mètre jotut ñaar fukki jotut mu mujj yuuxu ne sama doom ji ma gasa doon pax mi moo ma ci mën a génnee li ko mooy pax mi nekk sama bàmmeel yonentu beeg mbaax ga jël loxo ba rek yor ko ko ne ko bàyyi jàppal mu jàpp rek mu yëkkati ko génne ko ca biir pax ma kon kenn du yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp mu muñ la xoolal xawrasu nit ku bon kooku fekkoon yonentu bi dànd ay saxaabaam ci benn xare bu ñu tuddee zaatu imirin mu jël jaaseem ja bocc ko ci kanamam fekk da ko am fu mu ko wékk mu ne ko ana kan moo mën a tere tey ma faat sa bakkan bi ne ko yàlla mu tiit ba jaasi ja rëcc ko yonent bi jël jaasi ja taxaw ci kanamam ne ko kan moo mën a traité yow ma faat sa bakkan mu ne ko xanaa nga gën ma yonent bi ne ko doxal jéggal naa la ku mu mos a jekku jekkal la waaye mosul jekku kenn di ko jekkali kooku mooy mbaax xoolal taayif gële ba mu demee ay nijaayam nekk fa mu dem di leen wooyi jëmee leen ci yoonu lislaam yéene ci yoonu njub ñi dem boole ko ak mag ñu dofe ña ak jigéen ñu ñu yarut ña ak xale yu jëmut fenn ña tabaarakallaahu ñu koy sànni ay xeer lu bon lu nekk ñu ko koy def ba jibril ñëwee na ko waaye sa borom jox na ma digal ñaari doj yi ma boole ko këpp ko si biir dëkk bi mu ne ko yow yàlla allahuma ixfir lahum fa innahum laa yaalamuuna wallahi yow yàlla jéggal leen dañoo xamul rekk waaye ñii buñ xamoon buñ ma def lii te ñoom buñ ma gëmut yaakaar naa loo war a génne ci seen digg ci seen i njaboot ñu fa jaare ba gëm kon kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam yaakaar moo ëpp yaakaar yonantu yàlla noox bam ñàkkee yaakaar ca nitam ña dafa ne rabbi laa tasar ala al ardi min al kafirina dayaaran ndax innaka in tasarhum yudillu ibadaka wala yaldu illa fajiran kafaaran waaye yonantu bi dafa ne ko allahuma ixfir lahum fa innahum mu jéggal leen jéggalu leen layal leen moo ëpp euh, yaakaar gu rëy yonentu musa Muusa mi waxoon ne ko rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yuminu xatta yaraw azaban alim yow yàlla waaye yàlla nga effacé alli firawna jëg mbooloo xam ni yàlla nga takk seen xole ba buñ la gëm boo lëggee nga mën leen a mbugal mbugal mu tar yonentu yàlla Muusa ku dëgër la waaye nag moo ëpp yaakaar yonentu yàlla Ibrahima ne woon fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafur rahim moo ëpp yaakaar yonentu yàlla Isa mi ne woon in tu'asibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ñooñu ñëpp yonentu leen ëpp yaakaar moo tax mu ne ñii buñ ma gëmut yow yàlla mën ga génne ci seen digg yi ay doom ak i ay sët ak i ay sët sëtaat ñoo xam ne danañ adhéré wu ci lislaam di ko liggéeyal te noonu tey mu ko noonu la demee tey taayifa kenn la ci capitalu l'islam yi te lañ doon woo yonent bu leen fa yonent fekkoon dëkk ba yépp raaf kon yàlla jox la doole nga jéggale mooy ngóora waaye am naa doole tey ma wan leen ni ma leen xëppee doole nit ku baax nit ku am jom kuy taataan may yàlla yim def ci yow di ko bàyyi xel doo ko def te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ci man ñëpp kon yaa ayyuha alladina amanu sbiru wa saabiru wa raabitu jooju nañ ci bàyyi xel ribaat nag mooy fàndu fexe place ya gën a dansé ci xare ya nga dem taxaw fa baat bi cosaanam moo doon rabtu maanaam rabtu baat bi mu ngi bàyyi ko ci min maanaam rabtu ay rabtul xayli jël fas yeew ko waaye ñu tuddee ko nag kullu mulaasimin li faxrin min suxuuril islaam képp koo xam ne da taxaw ci yoon ci yoonu lislaam yi ya gën a dansé nekk koo xam ne danga ngaa mujj soppeeku mu maanaam mu raabitan faarisan kooku lañ jàpp ne mooy ki def ribaat moom la alquran ne wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaatil xayli ribaat googu ci la baat bi baxee ko ci maanaam baatu ribaat muy nag loo xam a xam solo moom nag xare dafay wuute ci jamono jamono ju ne nañuy xeexee ak jamono du nekk benn place bu ne la muy laaj dëkk bu ne la laaj du nekk benn waaye yàlla ba mu ne waiddu lahum mastataatum rek yonentu bi firi ko dëgg dëgg dëgg xare maanaam al quwwatu arram yu force dëgg mooy mën a sànni sànni nag ba mu ko waxee dugal na yëpp mooy sorti combat di rafetalaak yëpp xeet la ci sànni rek wax jooju moom du xewi jenn jamono jamono ju ñëw rek mën a ànd ak li yonent bi firee waaxidu lahum mastataatum min quwatin ne al quwatu daal mooy aram yu kon kenn du yonent bi ci wax ju fasaa ju mën a làmboo jamono yépp kon xaree ngoog nañ ci bàyyi xel shaacir ba dafa wax ne alxarbu fi xaqi ladayka shariatun wa min assumumin naafiati dawa u waaw waaw mu ne ko yow yonantu bi lay tagg ne ko yow xare ku mel ni yow xare ci xaq ku mel ni yow loolu sariya la man ta ñàkk lu ñu la waaye tooke yoo xam ne tamit dafay alge lañ koy mën a defaree lañ cee mën a musal mooy tabaarakallaahu fexe ba dindi dangar ja yéeféer yi dangari tooke giñ am ku kon mocciwut ñi faagaagal diine moo tax kon yàlla bëgg a xare lool nekk lum yoonaloon ci yonent yu ko jiitu woon ba ne wa laqad arsalna rusulana bil bayinaati wa anzalna maahumul kitaaba wal misaana li yaquuma annaasu bil qisti wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manaafiu linnaasi wa li yaclama allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil gaybi inna allaha qawiyun aziz suratul hadid aaya vingt cinq boo demee danga ko ci fekk kon xare mënta ñàkk bu la ragal tere xare ji xare taxut a dee ñàkk xare ji terewut a dee dee moom bu jotee rek nga dem defi ko faras daq wax na ko ku deewut ci jaas yi dee ci lu duwul jaas yi sabab yaa wutee waaye dee moom genn rek la ban la bi yëbbut bi sayfin maata bi xayrihi ku deexul ci jaasi dee ci la doonul jaasi sabab bi deexe wuutee waaye dee moom benn rek la ana diw ñu ne dee na lu ko rey ñu ne jaana ko mat a diw nag ñu ne dafa accidenté diw nag biir baay métti diw nag bopp baay metti diw nag dafa daanu ci teen bi wala dafa daanu ci kàmb gi diw nag dafa jabet diw tension ba la yooyu yëpp fa ñuy téere ji rek mooy dee nañ kon sabab yee wuutee waaye deega moom benn rek la kon nag nañ ci bàyyi xel ribaata ngoog lu ama am solo la wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yursaquuna farixiina bima aataahum allahu min fadlih wa yastabsiruuna billadina lam yalxaqu bihim min xalfihim alaa xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna ala imran aya cent soixante neuf yàlla nee na bu leen njort mukk mukk ne ñi ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee wallahi ña ngay dund seen borom ma ngi leen di wërsëgal ñu nekk ci mbégte nekk ci xéewal ña ngay bégee sax ñi deexagut pour nekk seen gannaaw ne waaye waaye waroon ngeen a dee suñ jaar ngeen jaar fa ba ngeen mën a jot ci li xam ne ñu ngi koy jot te ki dee ci xare manta xem kenn ci payoor laa yastawi alqaaiduna min almuminina gayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina darajatan wa kullan waada allahu alhusna wa faddala allahu almujahidina ala alqaidina ajran aziman darajatin minhu wa magfiratan wa rahmatan wa kana allahu gafuran rahima nisaa yi aaya quatre-vingt-quinze ba demee fekk ko ca ba quatre-vingt-seize gis nga tamit bakkan yi <laughs> yàlla nee na may jaay aljana waaye ñaari marchandise rek laa koy jaayee mooy jox leen ma seen xalal yi ak seen bakkan yi ma jox leen aljana ndax mooy ñaar yi ngeen gën a fonk inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi xaqan fi tawrati wal injili wal quran wa man awfaa bi ahdi min allahi fastabsiroo bi baycikum alladi baayaxtum bi wa dalika huwa alfawzu alazim tawba aya cent onze yi la yëpp ay aayaat la yàlla di ko wax di ci xiirtal nit ñi ci xeex nga xam ne mooy juróom-benneeli ponk ci lislaam yàlla ngi wax ne yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim bu ngeen ñëw ma tegtal leen commerce goo xam ne dana leen musal ci safara ñu ne ko lan la mu ne mooy tu'minuuna billahi wa rasulihi muy benn ñaareel ba mooy mu ne na ngeen gëm yàlla bu ñaareel ba mooy wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun su ngeen ko defee rek yaxfir lakum dunubakum wa yudxilkum janaatin tajri min taxtiha al anhaar wa masaakina tayyibatan fi jannati adnin waaye nag ah dalika al fawzu al aziim wa uxra tuhibbuunaha nasru min allaahi wa fatun qariib wa bashiril mu'miniin suratu safi lii la lépp ci aaya euh, treize la nekk ba demee da ko ci fekk kon yii la yëpp yàlla nga koy wax tabaarakallaahu di xiirtal nit ñi rekk ci jihaad ak niñ ko war a fonkee ak taxawaay bu mag biñ ci war a def yonent bi sallallahu alayhi wax na ci ay hadis yu bëree bëree bëree bari bëri abi hurayra mu ne benn waaye laaj yonent bi ne ko ayul amali afdalu jëf yi bu ci gën qaala al imaanu billahi wa rasulihi jëf yëpp gëm yàlla dëggal yonantoo ci gën xiila suma maasaa bu ci tegu gannaaw lii gëm yàlla dëggal yonantu bi ci tegu yonantu bi ne ko al jihaadu fi sabilillahi jihaad ci yoonu yàlla xiila suma maasaa gannaaw jihaad bu ci tegu mu ne ko xajjun mabruur mooy xaj guñ nangu xaj guñ nangu nag ñu ngi koy xamee gannaaw bi nga ñibsiwee li nga doon def ci lu baax lépp yokk safaan bi nga nekkoon ci ak caay-caay yëpp wane gannaaw su boobaa yow nga yëg nga ñàkk yëg rek sa aj googa yàlla nangu na ko kon jihaad gis nga position bi ko yàlla tëral bi ko yonantu bi jàngale mooy rek deuxième position la taxawee gannaaw gëm yàlla jëf yëpp jihaad a ci ëpp doole yàlla tamit bam ne kaay leen ma tegtal leen commerce bu dul lambu te bu ngeen ca nekkee mukki ci safara lu mu njëkk a wax tuminuuna billahi wa rasulihi naa waa ñaareel ba nag mu ne wa tujaahiduuna fi sabilillah kon jihaad mooy deuxième position ci l'islam yonentu bi neen la xudwatun fi sabilillahi aw rawxatun xayrun min na wa ma fiha benn xëy boo xëyal yàlla di jihaad ci toolu lislaam ngir yàkkali ko wala benn gont boo gontal yàlla ci toolu lislaam di jihaad ngir yàkkali ko wallahi moo gën a àdduna ak li ci biiram lépp buñ ko defoon marchandise nga dundale ko ci yoonu yàlla benn bis boo jël ci xëy jox ko sa bakkan ci yàlla ngir xeex moo ko ëpp kon yooyu dafa koy tasale abi saïdul xudri yu mu ne benn góor dafa ñëw ci yonantu bi ne ko ayun naasi afdalu nit ñi ko ci gën mu ne ko muminun yujaahidu bi nafsihi wa maalihi fi sabilillah nit ñi ki ci gën mooy ki gëm yàlla piir bi jihaat ci bakkanam di jihaat ci alalam xaala suma man mu ne ko ku ci tegu mu ne ko mooy mumin mooy koo xam ne gëm na yàlla nga xam ne ma ngay jaamu yàlla baxi nit ñeeg seen xayya yaabudullah wa yadau naasa min charrihi kooku hadis la boo xam ne muttafaqun alayhi la buxaari yoo muslim yëpp ñoo ci bokk ànd tàn fàndu nag gi ma doon wax dafa am doole yonentu nee na ribaatu yawmin fi sabilillah xayru mina dunya wa ma alayha mu ne fàndu benn bis rek ci yoonu yàlla place yi gën a dansé nga taxaw fa éé moo gën a àdduna ak li ci li ci kawam lépp àdduna ak li ci biiram yëpp mu ne war rawxatu yaruuxuha al abdu fi sabilillahi aw al xudwatu xayrun mu ne benn ngont goo gontal yàlla ci toolam yi wala nga xëyal ko benn xëy xayrun min dunya wa ma alayha waxul wa ma demee wa ma la wax kon nag fàndoo ngóog ak doole ju réy ji nga xam ne nekk na ci nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax lépp loo xam ne suñ borom mi ngi ko ci santaane jéem cee góorgóorlu aaya yi loolu lay digle ci yaa ayyuha allazina amanu musbiru wallahi wasaabiru wa raabitu wattaqullaha laallakum tuflihuna kon yàlla digal nañu ñeenti yëf ne bu ngeen ko defee dinaa leen dëxal benn ba mooy ngeen texe su ngeen muñee di muñ lante place yi gën a daase ngeen fay taxaw ngir taxawu lislaam boole ko ragal ma amul werante ne su ngeen deexee da ngeen texe te ab jullit bu xasee xam texe ñàkkul dara bu ñàkkee texe amatul dara àdduna bi ay tool la yàllaa ñu fi indi ñuy bay ku la gën a yaatu mbay te gën laa setle rek moo la ëpp résultat waaye yàlla jox la ay tool bay ci nga sàggan yaafus ba tool ba booy bu liggéeyee boo demee ba gaa yay peese kii ne am naa téeméeri mbaam kii ne am naa juróomi téeméeri mbaam yow amuloo benn saako sax wala genn wàll saako danga xam gàcce gu mat gàcce te yàlla yàlla musal mu ci yàlla nañu yàlla boole ci mu yaatu. te liñ bay lépp yàlla na seet wecci te mbay ma tamit yàlla buñ ci gis suñ bopp naan ñoo dàq bay ñoo gën a rafet mbayeef ndax loolu lépp boo ko ci xoolee tamit dafay nekk loo xam ne lu yàq la mooy jëfal rek te fàtte ko doomu aadama ju ne lépp lu mu jëf ci lu baax da koo war a fàtte waaye lu mu jëf ci lu bon tamit nag sax ci xolam mu bañ koo fàtte ndax mooy waral maanaam tamit mu mën koo tuub dellu ci boromam bu baax a baax a baax mu tëjee nag santaane yi nañ ragal yàlla bu baax dagal yàlla nag mooy def santaane ya bàyyi tere ya ci ni yàlla bëggee bañ koo defee tamit ñun ci nuñ bëggee Cheikh na Tijaani taqwa daal mooy imtisaalul awaamiri wa jitnaabu nawaahi min haythu yarda la min haythu tarda kon loolu mooy taqwa moom la mujjee aaya ji ne wattaqullaha laallakum tuflihuna laalla ji nag du xarfu tërëji mais taxqiq la ndax kon ci yàlla la dellu rek mooy yii ñeent ma sant leen luxuur na man naññ ne su ngeen ko defee da ngeen pexe ci benn sikk sàkk muñ muñ lante ragal yàlla ku ci ne boo deexee dem aljana yàlla nañu ko yàlla defal kon nag lii mooy fukkeelu yaa ayuha ak juróom ñett ci alquran moo mujj tamit ci suuratu al imran bi ñaareelu saar ci téeréeb yàlla bi tombeeg ñaar téeméeri aaya ci suratu al imran boo ma toppee suba nag ci kartanal yàlla ci waxtu wi ma dugg ak yow fukkeelu yaa ayuha ak juróom-ñeent nga xam ne mooy njëkk tamit ci suratu nisaa yi waaye nag suba ci waxtu wi la doon insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kar